coup d'état ndax état de siège la ñu mujjoon a li nga xam ne mooy capital ba lu toll si ñaar fukki junni ci ay soldat garde républicaine moom la ñu génn woon ngir ñu sécuriser li nga xam ne mooy capital ba yéen kaay gi nee na Donald Trump ma nga xam ne moo jiite woon réew ma niki démb dem na waaye nag nee na je viendrai d'une manière ou d'une autre nee na dina dikkaat ci nii wala ci naa Donald Trump fekkewul li nga xam ne mooy cérémonie d'investiture ba yéen kaay gi ñu xëy fekk fa Joe Biden daat nay wax ne américain yëpp nañu booloo te ñëpp nekk seen njiitum soleil xëy ci woppi coronavirus ak vaccin bi nga xam ne moom la ñu wax ne dañu koy indi ci réew mi ngir ñàkk ko askanu Sénégal ngir mën a mucc ci woppi coronavirus journal bi dikk na ci ak conseil des ministres kàddu yi njiitu réew mi di président Macky Sall yëkkati wax na gouvernement bi ngir ñu sensibiliser ñi nga xam ne ñooy askan bi ba pare defar terrain bi bam na cook ñi nga xam na ñooy takk der yi force de l'ordre yi et de sécurité yi ñooy gunge gouvernement bi c mbir moomee yéene kaay gi di Sud Quotidien li mu xam ne mooy vaccin yéen a gi di 24 heures xëy samp ab laaj na li nga xam ne moo jëm ci wàllum vaccin bi ak ñàkku gi est-ce que askanu Sénégal dañu leen a war a ñàkk par force jaraaf bu am démb janono ak taskatu xabaar yi nee na vaccin bi nga xam ne moom la ñuy wax ne dafay faj coronavirus te ñu koy indi ci Sénégal na Macky Sall ak njabootam ak gouvernement bi njëkk a ndax day matte wala du matte yow mi ko fi indi njëkku koo jox sa loxo yi a kaay gi di évidence nee na en tout cas li nga xam ne moo am ba des te jaaxal ñu bari mooy palais ba wala gouvernement bi bu ñu waxee rek wax aw toj penc yi maanaam communication moom mënuñu ci dara saa su nekk ñoo ngi si def ay njombe ak i rëq-rëq yéen a kaay gii di Vox Populi xëy ci woppi coronavirus ak ni nga xam ne moom lay lawee ci réewum Sénégal yéen a gi li mu gis nee na en tout cas lii raam sa ñag ba la jëm te bu fa amee kër du baax ndax lu toll ci fanweer ak benn ci ay nit ñàkk nañu ci seen bakkan ci diirub ñetti fan yéen a kaay gii di Dakar Times xëy ci xaalis bi nga xamante ni réewum Sénégal ma ngi koy jot ni ay ndimbal jëm ci wàllum saafara émigration clandestine mooy li fi Boubacar Seye doon wax journal bi nee na 2005 jàpp 2019 lu toll ci 200 milliards jox nañu ko réewum Sénégal yéenekaay gi de L'As nee na fondation Idriss Baol daat nay dëggal kàddu yi nga xam ne Boubacar Seye daan na ko yëkkati ndax ab rapport boo xam ne daat ñu koy fësal wax nañ xaalis bi nga xam ne réewum Sénégal jot na ko ngir nag saafara li nga xam ne mooy émigration clandestine yéenekaay gi di Direct News xëy na ci Mamour Diallo mi nga xam ne moom la Ousmane Sonko tuumaaloon 94 milliards ne daf koo ngar daajoo Mamour Diallo moomee tamit tuddaan nañ ko ci ay léexóor ak i wuru ca ki njombekki tojaange ci lu jëm ci ay terrain yéene kaay gi nee na ñaareelu plainte bi nga xam ne Ousmane Sonko defoon na ko ay miiru ñing ak député bii di Cheikh Seck jëm ci wàllum viol secret de l'enquête bi plainte boobee classé nañ ko sans suite yéene kaay gi di Walf Fadjri xëy di ñu xamal lan ñu Ousmane Sonko persiste signe et défie le procureur ci 94 milliards yi nga xam ne tuumaaloon na ko Mamour Diallo yéene kaay gi di Rewmi ñu xëy fekk fa Amadou Samba mi nga xam ne mooy de la coopération et du partenariat ci CDC bu Sénégal xëy na fàngaam ci yéen a kaay gi di réew mi ko di cee wax ba ne gër géex waxtaan wu yaatu la séq ak journaliste yi wax na ci rôle bi nga xam ne CDC moom la joué maanaam caisse des dépôts et des consignations ak mission yi nga xam ne moom la ñu ko sant bokk na ci transparence ak wàllum tëddee njaaxaanaay ak sécurité ci xaalis bi nga xam ne moom lañ ko dénk ak mission yi nga xam ne moom lañ ko wax ngir mu dugal fa xaalis ba moom Amadou Samba wax na ne caisse des dépôts et des lépp loo xam ne jëm na ci wàllum financement des paiements wax na ci woppi coronavirus ji ak gàllankoor gàllankoor gi nga xam ne gàllankoor na ko CDC bu Sénégal yéen a kaay gii di Sud Quotidien xëy wax ci crise Casamance bi nee na ñi nga xam ne ñooy waa MFDC ñoom nag ñoo ngi sàkku ay négociation yéen a gi Dalas xëy na ci président Macky Sall ak ni nga xam ne moom la faagaagale néewal doole ñi nga xam ne ñooy opposition bi activiste yi jamono ji ñoom ñooy andil Macky Sall ay ñol-ñol l'observateur xëy ci opposition beek noppi gi nga xam ne moom la ñu noppi ñenn rek ci bi lañ dégg ñuy wax ndax mbiri Boubacar Sèye bi néewaan opposant boo xam ne yëkkati na ci kàddoom yéenekaay gi di Sud Quotidien xëy ci njaboot gi ci famille yi ak jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund violence yi fitna yi nga xam ne moom la ñuy teg jigéen ñeeg agression yeeg yàkkataan gi ak ñi nga xam ne dañuy tëddee ñoo xam ne ñoo bokk deret journal bi nee na loolee moo sonal njaboot yu baree bari yéenekaay gi du L'Observateur xëy di ñu nettali lu doy waar ci Sandaga nee na dafa am benn commerçant boo xam ne dafa yónni woon ab cag-cag cag-cag boobe nag moo dem nandal benn agresseur agresseur bi ñëw agressé commerçant bi jël ci moom lu toll ci 17 millions yéenekaay gi di xëy na ci Liverpool tey tey jii dina dalal Burnley bi nag mu nekk juróom-ñaar fukk ak ñeenti match yoo xam ne Liverpool maa ngi koy football ci stade bii di Anfield stade tam bi te amu ci benn défaite yéen a kaay gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa Zallo muy càmbara di décortiquer combat bi war a dox diggante Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier nee na Bombardier ak Balla Gaye ñoom ñaar ñëpp am nañu staff Bombardier gëm na sëriñ waaye Balla Gaye de kenn du moom nee na daal Balla gay moo dàq bëre wax na tamit ne Balla xeexu mbedd lay xeex. Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may seen de presse